bi leer nañ nañ nañ nañ bi nanga ah. def ça va dara métti la da ngay muuru léegi waaw non non muuru ma ça va bien hein loolu doo waaye léegi wax ma léegi wax ma ci lan nga nekkoon tànn. explique moom ma xam non damay wax lépp kay ci nga nekkoon lépp loolu. dafa yoroon waaw moom si spécialement waxtaan. voilà. léegi lan bëgg xam yow ci lan nga nekkoon tànn. maa ngi woon si jàmm. maa ngi woon si ku nekk woon boobu. agent de la DID. Hmm? agent DID yi laa nekkoon foofu. ñoom hmm. kese nga nekkal ko. ak e benn dame bu ñu doon toogee. Hmm. here. waaw léegi man dama bëggoon ñëw ñu waxtaan tuuti nga Aliya ah? da ba nga dem nga déglu ci xel dañu teg ko ci dëgg loolu dañu war a sant yàlla bu baax li ñu yàlla boolee fii ñu ñëpp di toog nekk en vie yow aussi nga nekk en vie boo nee nga nekk en vie naa ñëwaat ci naa ñëwaat ci loolu parce que li di xew y a neuf mois maintenant li xewoon laa wax boo toogee fii ba tey li nga toog ñu toog ñëwaat di ko nettali kooku yàlla la que am na ñoo xam ne bu dépendre doon ci ñoom rek kooku nit ñi kenn waxatul ay say wax xaw ma xam nga loolu lépp loolu nag boo ko amee yàlla na koy sante ko nit ñi am na waxte yàlla tax rek parce que <coughs> bi affaire yi méttee bu métti ñoom loolu jël récupéré la nekk muy métti na ngeen jóg daaru di sombi di añ di reer di baxal di lekk di naan di dem marché di ñëw ñëw ñu bàyyi seen lépp bàyyi seen vie de famille bàyyi seen lépp moom ci sa tonton bi toog ko quelque part ku nekk bàyyi lépp nekk sa service pour que tu sois en sécurité donc nañ sant yàlla bu baax loolu moom c'est extrêmement important yow aussi dina la metti ngay xale bu ndaw am vingt ans am metti du lay épreuve yoo xam ni xëy na bu doon keneen la heure bi dox la tu as na ba tey di subir épreuve bi di dund di ko di ñafe ak moom parce que pas évident pas évident te dund ko nekk ak moom ba heure bi tey je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé je te parce que man mag laa am naa ay doomu jigéen yu la mag donc man comprendre yu bëree bëri et je ne reviendrai pas là-dessus merewuma wala ci tu es même brave tu es très brave parce que une autre fille de ton âge bu nekkoon situation bi dana demati lay tu es brave tu es courageux tu es bien battu ba bi yaa ngi toog jàpp sa jàpp léegi nag li ci nekk mooy yow dootoo mun lu toll comme li nga mën mënatul nekk li nga mun bëri na de tout le monde est un homme. Puis elle a souffert aussi. Et ça, on le reconnaît et on l'admet. Mais nous aussi, on a souffert. Nous même nous souffrir. Parce que on a voulu, on a voulu te gérer. du ma revenir ci li ñu nekk ci li ñu waxante woon amul dara loo xam ne nii ñi ñu defal ko seen intérêt personnel aji fii lépp lu fi ñu def rek pour dimbali la pour jàppale la pour génn situation bi nga am une nouvelle vie parce que ki la doon ki la tooñ ba defal li mu la def ba mu indi lépp ana mu tey lu mu ngi fi doxee soxlaam am déet ay mu ngi dox soxlaam bi di jënd ay bilan di dem ay soxlaam yow nga toog dans un coin mu ngi loo génn ça c'est pas normal da nga war a gagner souffrance man nag. du ma la mës a bàyyi te mësuma laa bàyyi du ma la mës a abandonné loolu la bëgg nga xam ko ñoom ñuy toog dañuy mës a bàyyi dañuy mës a tu es parti ils ont tout fait pour te récupérer après ils ont compris ñu toog jàpp seen jàmbur yow sa bopp yaa ñëwaat bi nga ñëwaatee mënuñ la la sànni mais ils t'ont pas rejeté ils t'ont encore adopté donc daa bëgg nga xam ni yow dañ la boole ci famille bi dañ la boole ci sa tu es tu es notre enfant. Mm-hmm. tu es notre fille. bien. man nag dama la promettre la lune wala mooy di luñ mënta def li ñu la waxoon mooy bis bu procès bi jàllee dañ la wutal passeport danañ la ñëw tukki bis bu procès bi dañuy wutal passeport dañu ñëw bëgg a tukki c'est ça constitue bi loolu changé wu ma ci tey changé wu ma ci ëllëg parce que sama la mën naa ko digaloon ak yow te dañ koy def mais heure bi nii fi toll nii nii nii aji mënoo am passeport mënoo génn réew mi tant que procès ko wax waxul dëgg ku ko dig dig na lu mën def. donc li fi des mooy nga xool yaay décidé man kenn décidé parce que tu es majeur te wax naa leen ko ñoom kenn du la forcer ci dara dara dara même boo demoon tey bëggatuma nekk ak yéen nga nekk feneen man je fais considérer comme ma fille loo bëgg mu dimbali mën naa la ko defal lu mën a mën a jàppale mën naa la ko defal parce que yaay décidé ci si ma di bëggatoo nekk ak ñoom da ngeen bàyyi nga dellu on garde le contact. loo soxla bu ma ko ñaanee ma defal la ko boo ko Viviane boo ko ñaan Viviane ma defal la ko te lu tey bis bu sa procès jeexee ñu li ñu la waxaat li ñu la war a def ñu defal la ko tukki amoo ci problème maintenant si tu veux rester avec nous comme ni nga resté ak ak ñun aussi je suis d' accord loolu dañ ko bëgg moi moi je suis prêt mm-hmm. malgré tout ce qui s' est passé mm-hmm. malgré tout ce qui s' est passé là je suis prêt aji adopté waat la wutal wutal la foo nekk. ak ñi ak ñoom ngeen ne comme ngeen ñi ngeen nekkee woon trois mois yàggatul muñ ko mu jeex sa procédure nga dem sa yoon nga li nga war a def mais mais ci ay conditions lay nekk condition bi ci jiitu mooy da ngay toog ci kër gi boobu nga génn nga ànd ak ñoom nit nga en prison nekkuloo kaso. mais ku doon si tu as envie de sortir ñu organiser la nga génn parce que c' est ça qui fi normal une jeune fille toi doit sortir boo bëggee dem fii nga def ñu organiser la tam nga génn si tu vas aller au resto ñu la nga génn si tu vas sortir ñu organiser ko nga génn mais xamal ni am nekkatoo yow une fille normale nekkatoo une fille comme les autres nga xam ne lu la neex nga def fa la dem. à l'abri parce que c'est il y va de ta sécurité ñii nga ko seqal day ni nii ñoom bu ñu la mënoon liquider la ñuy liquider bu ñu la mënee rey dañ lay rey man nag du ma la jëlal benn décision mais condition bi daal mooy loolu et puis ñu nekk ci jàmm ay nit nag bu ñu danañ xuloo danañ jàppante dañuy am problème loolu amul amul problème waaye ñu teg ñu teg ko ci yar ak teggin nekk ci jàmm. nga xam ne ñoom sa ay yaay ak sa ay nijaay ñoom aussi ñu xam la sa sa doom sa seen doom la di dund une vie normale le temps que le procès arrive le procès bi arrive ñu ko jugé ba pare yow li ma waxante ak yow di defal la man loolu laa ci xam li wax ji nag bari na man dégg naa lépp waaye baal naa la amul benn problème baal naa tamit ci des. li ñu mën xam daal mooy Viviane nii ak Coly ak sa tonton man wóor na ma ne mënoo leen a fay parce que ils ont pris des risques ils ont donné le temps pour defal yow aussi ñoom aussi am na loo leen defal parce que ñoo nga confié wu ci ñoom en tant que leur fille donc loolu mooy dëgg ñun fi nga nekkoon démb fi nga nekkoon fan yii xaw ma leen ñu ngi leen di jugé xamuma dama leen jugé mosuma leen gis wala kenn laa ci mos a gis une fois xaw ma leen xaw ma leen waaye mën nga mën di wax ci àddina te du lii nii amul leneen li rek mën nga mënta wax pour jaxase la pour yàqal la pour indil la ma amul ci problème ñoom bu ñu la bëggee téye nañ la téye la li la war a defal mais mooy que tu sois heureuse que tu sois tranquille que tu ne sois pas prison nga nekk si jàmm rek loolu laa bëgg donc amoo problème pour mu nekk ak ñoom xamoo ci problème te te boo nekkee ak ñoom aussi loo soxla wax ma ko dama koy def dama koy réglé boo mu ne tonton dama bëgg lii ak lii ak lii nga jaaree ko si biir yàlla mu ma ko mën a dimbali defal la ko fii te dama am benn contrat ma ak yow et du ma la mës a bàyyi jusqu'à la fin de mes jours aji du ma la mës seetaan a bàyyi te loo bëgg mën naa la ko 30 ans tey état bi parewul pour la passeport parewul kenn mënu laa defal passeport ci ak ci sa policier bi la ko njëkk a defal passeport dañ koy dàq du fanaan bureau la preuve ay policier ay agent de surveillance donc amul passeport boo tukkee donc mënta nekk donc c'est pas parce que dañ la bañ a la bañ a jàppale wala dañ la bañ a dimbali du loolu mais mënta nekk war a comprendre c'est pas comme c'est pas possible nag ñaari option rek moo fi nekk si tu veux rester avec nous ma gënoo ma gënal ay man li ma gënal man nga toog ak ñoom ñu seet yan condition nga mën a dundaate ak ñoom ci ci lii ma la wax nii vraiment loolu laa bëgg parce que kenn du am sa doom nekk ak moom pendant des années di ko sànni man bëgguma nga nekk ci ay loxo yu ma xamul parce que wóor na ma mënul am fu gën ñoom fi ñu nekk man loolu laa gis mën na am nag ay problème mën na am ay ay détails ay différents mën na am ay jafe-jafe loolu c'est normal fépp lay am mais ñu la gën a bëgg comme ñoom ñu la bëgg nii man gëw ma ko mais bu dee bu la boo dee ba xam nag léegi bu la wóoree ni vraiment fii mënoo fay nekk ak ñoom mënoo nekk ak ñoom yow choisir ak fan nga bëgg ak lan nga bëgg man ma defal la ko parce que j'ai des événements bu ma la mën a bàyyi je veux que ça soit clair foo bëgg a dem yow fii laa bëgg a dem fii laa bëgg a nekk lii laa bëgg a def. je te je pour toi parce que sama intention bi ma woon démb ak bëgg démb mooy pour sauver la jàppale la ba sa situation bi dañ maanaam li li ñu def mu dañ la te mu maximum la c' était ça mon objectif et ci loolu laa nekk ba tey je ne sais pas si j'ai été clair mais dama bëgg laa nga ni man sa papa laa ñii say tante la ak say tonton lu jàmm ak salaam lañ la bëggal donc ne prends pas de risque. ngay tëb di gaañu wala ngay daw wala ngay génn di def di di di def di jël ay risque bu yàq sa avenir tu n'as que tu n'as que tu n'as à peine vingt ans tu as de l'avenir devant toi ëllëg ba nga réussir man du ma la mës a seetaan dans ma vie di la ngay torox wala ngay am problème du ma ko mës a def du ma ko mës a def ci àddina lu ma la mën jàppale danaa ko def je vais le faire c'est un engagement que j'ai pris je le ferai mais donc bu yàkkamti bu yàkkamti mais nag la décision yow yaa koy jël c'est pas moi c'est pas Viviane c'est pas les tontons c'est toi qui prendras la décision c'est prépare aussi les éléments de la vie yow yaay xool fi nga bëgg a nekk ak yan condition nga bëgg a nekkee nga nekk foofu loolu moo tax mooy tey comme gën nañu gisee gën nañu toog te gën ñu gisee bi aussi dafa am yu bëri yu ma doon moytu dafa am yu bëri yu ma éviter parce que c'est très compliqué am na yoo xam ne mënoo koo xam am na yoo xam ne mënoo koo xam dépassé na moo tax mënoo invité yu bëree bëri parce que loolu du sa domaine mais je ne je ne t'ai jamais abandonné je ne t'abandonnerai jamais dama ñëw nag pour di waxtaan nga wax yow lan nga bëgg que tu me dis sincèrement qu'est-ce que tu veux véritablement bu ñu ko mënee def ñu

힘들어요. 너도 너 그래서 가고 원래 가고 내일 조금 대단 나가요. 막에 붙어. 너무하다. Les garçons, les garçons. Allez, dégagez, dans la chambre, vite fait. Moi, je suis là, xoolal sama sooja yi sooja. Et défilé la vite. ñu naan kafe woon. Non. Non, c'est bon, non, pas. Moi, je suis bien comme ça. Merci. bëgg na laaj fop laajte nee naa ko kii sa papa la bul ko wus lépp lu nekk sa bopp traumatisé wala c'est le moment. loolu moo tax ma ñëw. soo man même man soo ko bëggoon daa sama sa waa 这样这样他们会。lay foog nag après bu mu posé question de je ne suis pas là mataa leen baatoo bi am kilim bi. léegi mooy la. mataa leen baatoo bu kilim bi. ah ma fay sama téléphone. mais man soxla ma bandilu. kilim de mataa. soxla ma kilim. merci c'est gentil. ah ma fay sama téléphone tey parce que bu mu ñëw fii woo.